Bonjour. Réforme de la commercialisation de l'arachide et consorts le 8 mai des producteurs. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication informe que moins de quinze jours après l'invite faite par le président de la République Macky à la Sonacos de revoir sa manière de collecter l'arachide, de s'adapter aux réalités du marché de la collecte de graines et de créer les conditions d'amélioration de sa rentabilité, l'huilerie nationale a proposé la mise en place d'une direction achat graines on lieu et place d'une filiale. Le confrère de l'avenue Bourguiba indique que par l'entremise de son conseil d'administration qui était en réunion le 13 janvier dernier, la Sonacos s'est mise dans une posture de changer de paradigme pour se conformer à l'instruction du chef de l'État. Pour le point focal du syndicat des corps gras Antenne Kaolack Boubou Aw, le retour d'un service achat graine va permettre à la Sonacos de se reprendre en main. Selon lui, la création d'une nouvelle unité achat graine est le meilleur projet de relance économique de l'entreprise que le conseil d'administration puisse imaginer en ce moment. Pour le porte-parole du CNCR Sidiba, il reste évident qu'aucun projet de réforme de la Sonacos agriculteurs, producteurs qui détiennent les graines, donc les matières premières qui servent naturellement à la Sonacos. Intéressons-nous à présent à la fin de l'état d'urgence avec Sud Quotidien qui rapporte que Macky Sall promulgue la loi instituant le troisième régime. La fin de l'état d'urgence a été actée hier, mardi janvier, par le président Macky Sall qui promulgue la loi 2021-18 modifiant la loi du 29 avril 1969 relative à l'état d'urgence. Dans un communiqué, le ministre porte-parole et coordonnateur de la communication de la présidence de la République, Seydou Gueye, dit que nous bousculons dans la gestion des catastrophes et crises sanitaires. La loi et élargie, estime le Soleil, avec l'entrée en vigueur d'un troisième régime juridique. Le gouvernement est invité à veiller à l'exécution stricte des dispositions valables un mois, renouvelables. Ces mesures sécuritaires et sanitaires sont entre autres le couvre-feu, la réglementation des rassemblements, des réunions et du port du masque, ainsi que l'organisation des déplacements, du fonctionnement des et des commerces. On se retrouve avec un mois de couvre-feu renouvelable à Dakar et Thiès. Couvre-feu de 21h à 5h du matin, d'après Vox Populi. Macky crée et impose son droit, soutien Les Quotidiens. Le Soleil signale que les mesures barrières sont mises à rude épreuve à Yaraax, avec notamment la promiscuité, l'insouciance des jeunes et le manque de moyens. À Yaraax, beaucoup de familles tentent tant bien que mal de vivre en présence du nouveau coronavirus, dont voici le bilan du mardi. 10 décès, 168 nouvelles contaminations et 47 cas graves admis dans les services de réanimation. Au total, 536 personnes ont perdu la vie à cause du Covid-19. Le Sénégal est deuxième en Afrique de l'Ouest selon l'AS. Docteur Ibou Guissé du SNEPS e a déclaré que si 80% de la population porte correctement le masque, le virus disparaîtra dans moins de deux mois. Restons avec ce virus avec Rewmi Quotidien. Ligne Tata un imprimeur de 49 ans pique un malaise et meurt. Un test effectuées sur le corps. Suspicion autour de l'audit du fichier électoral, Wade cherche le virus chez Macky Sall. Le Parti démocratique sénégalais exclut les experts étrangers dans Tribune et les libéraux réclament toujours la présence de l'opposition significative. Les échos s'intéressent à la plainte avec constitution de partie civile contre Mamour Diallo, Tahirou Sarr et Meïssa Ndiaye. Le doyen des juges déboute Ousmane Sonko. Le juge Samba Sall a rendu une ordonnance de refus d'informer, classant sans suite la plainte du leader de Pastef. Ousmane Sonko n'a pas subi de préjudice ni direct ni personnel. Il n'a aucune qualité à agir. Affaire des 94 177 milliards de francs CFA, la plainte de Sonko est classée sans suite, informe Libération. Boubacar Seye de Horizon Sans Frontières passe sa première nuit en prison et 14 organisations et personnalités exigent sa libération sans condition. D'après Sud Quotidien, il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles sur les 117 milliards de francs CFA de l'Union européenne contre l'immigration clandestine. Palestine. Seydi Gassama de Amnesty International martel que la tyrannie ne triomphera pas et son avocat maître Assane Dioma Ndiaye soutient que Boubacar Sèye est psychologiquement abattu. 24 heures titre sur la liberté de Sèye au régime sec. Diary aurait fait le choix de partir et ce n'est pas sous emprise selon les Échos. La mission va bien, elle est saine et sauve. Elle a fait le choix de partir. Dans son livre, l'héroïne Aline disait, je cite, vouloir les interdits. Fin de citation. Sur l'international, retenez que le président élu américain Joe Biden va prêter serment ce mercredi. En sport, Stades le quotidien du sport nous parle des retrouvailles explosives entre Juve et Naples et se demande qui, entre Koulibaly et Ronaldo, aura le dernier mot. Stades s'intéresse également à la course à la présidence de la CAF avec Senghor qui reçoit le soutien de la légende Roger milla Terminons par Sunu Lamb qui donne la parole à Max Margan. Il décortique Modlo et Ama. Modlo est un bon bagarreur, Ama a mis KO Ils sont trop mystiques. Max Mbargane de poursuivre toujours dans Sunu Lamb que Modou Lô a un bon staff, Ama a une famille. Il termine par Modou a une force intérieure et Ama est bien bâti physiquement. C'est tout. à vos journaux et très bonne lecture asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool tey jilee dañu koy door ak Sud Quotidien mu ngi waxtaane coppite yi nga xam ne moom lañ namm indi ci njaayum gerte gi ci sunu réew ak kàddu gi nga xam ne moom la ci jox ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàll wi bu ñu sukkandikoo ci ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication lu néew fukki fan ak juróom ginnaaw gi njiitu réew mii di président Macky Sall xamale waa Sonacos ne fawuñu ñu xoolaat seen doxalin jëmale ci wàllu ni ñuy jotee ci gerte gi ak fexe daal ba seen liggéey gën a ñoom waa Sonacos seen te fu mooy teeg benn direction booy xam ne day yëngu ci wàllu wi bu ñu sukkandikoo ba tey ci suñu naataangoo yi fare ci avenue Bourguiba conseil d'administration bu Sonacos amaloon na ci ab daje ci fukki fan ak ñett ci weeru janvier bi nu ne ngir seet nan la ñuy jëfee ndigalu njiitu réew moomu lee ki teewal syndicat des corps gras ci ci Kaolack di buubu aw moom rafetlu bu baax a baax mébétu waa Sonacos gi ndax nee na daal bi muy projet bu gën ngir mën a tegaat ci raay bi bile entreprise ñu des ba tey ci wàll wi ak ki nga xam ne moo yore kàddu CNCR di sii di Ba moom nag nee na mënuñu sumb benn coppite jëmale ci wàll Sonacos te boolewuñu wuñu ca béykat yi ndax béykat yooyu le ñooy jox Sonacos arène bi nga xam ne moom la soxla ngir mën liggéey jëmale ci jeexitalu état d'urgence suñu réew ak waa Sud Quotidien président Macky Sall jëmmal na loi bi nga xam ne moo jëm ci ñetteelu régime bi loi boobu nga xam ne nag moo ñëw wuutu bi ñu tegoon ci atum 1969 te mu jëm ci wàllu état d'urgence ci communiqué ki yore kàddu jokkoo ci présidence de la république du Seydou Guèye di xamal ne fi mu toll nii dañoo jugee ci wàllu état d'urgence jàll ci yore yorenu jëya ñi jëm ci wàllu alam bi ak wér-gu-yaram loi bi daal lañ ñëw yaatal bu ñu sukkandikoo ci waa soleil gouvernement bi daal fi mu toll nii dañ leen laaj ñu jëfe ndigal rawatina ci mesure yi nga xam ne fileeg weer mën nañu ko yeesalaat yooyu les mesures jëm ci wàllu couvre-feu ndajaloo yi nga xam ne askan bi moom lañ faral di am solu masque bi ak it mesure yi jëm ci wàllu dem beeg dikk bi rawatina nan la ñuy gën a ñoŋalee doxalin bi ci biir transport bi ak ci bërëb yi ñuy jaayee vox populi di ñu xamal ne daal région de Thiès ak Ndakaaru daal dañ leen yokkal weeru couvre fa buy door ci juróom-ñeenti waxtu ci guddi jàpp juróomi waxtu ci fajar bi lii quotidien di xamle ne président Macky Sall la mu bëggoon am na ko teg ci nag force ñu ko ñu waxtaane ba tey ci wàllu mesure yi nga xam ne moom la waa kër docteur yëkkati ngir xeex mbas mi le soleil di ñu yaraax li ko waral nag mooy dëkkuwaay bu xat bi yenn ci ndaw yi nga xam ne mbir yi safu leen benn yoon ak ñàq jumtukaay bi ñu fa nemmeeku démb ci talaata gi nag fukki doomi aadama yu yees ñàq nañ ci seen bakkan téeméeri malaat yu yees yu toftalu juróom benn fukk ak juróom ñett amee jawmu jàngoro bi ñeent fukk ak juróom ñaar sonn lool ba nekk Sowetaas bilangu ñi ñàq seen bakkan fii suñu réew toll ci juróomi téeméer ak fanweer ak juróom benn waa laas di ñu xamal ne suñu réew mooy ñaareelu réewu l'Afrique sowu jant boo xam ne daal mbas mi faat na fa bakkan bu baax a baax ñu des ak waa laas bi jox kàddu gi docteur Ibou gisee bu SNEPS moom daal xam la ci téeméer doomi aadama boo jël bu dee juróom-ñett fukk yi ñu ngi sol masque na mu waree ñàqul ne doomu jàngoro bi dinañu tàggook moom ci lu néew ñaari weer balaa ñu cay yegg nag waa réew mi quotidien di ñu xamal ne ci ligne tata numéro 67 dafa am benn imprimeur bu toll ci ñeent fukki at ak juróom-ñeent ñàkk ba kanam defal nañ ko test covid bi ngir xam ndax looloo ko yóbbu ñu wax ci wàllu politique ak maître Wade bi nga xam ne mi ngi wër virus bi daal ci kër ma ki Sall jëmale ci coow bi nga xam ne moo am ci saytu bi ñuy saytu fichier électoral bi waa tribune bi ñu xamal ne parti démocratique sénégalais buggul benn yoon ñu jéggaani ay expert bi ci réew ngir ñu ñëw daal saytul ñu fichier électoral électoral bi libéraux yi lenn daal la ñu bëgg mooy ñi gën a fës si wàllu kujje gi bokk ci boobu la liggéey ñu des ak kujje googule ak ki nga xam ne ca la bokk di Ousmane Sonko moom nag plainte bi nga xam ne moom la tegoon ci ndodd Mamoud Diallo Tahirou Sarr ak sa Ndiaye doyen des juges du sàmba Sall defalu ko lëm ca bëggoon Ousmane Sonko loruwu si benn yoon moo tax daal amu ci benn sañ-sañ ñu des ci mbir moomule ak libération bi ñuy xamal ne plainte Ousmane Sonko boobule daal juge bi dakaa dugal ci tiroir yi te mu jëmoon ci lu ëpp juróom-ñeent fukki milliards ak ñeent bu Boubacar Seye bu Horizon Sans Frontières moom nag fanaan na guddeem bu njëkk ci biir kaso bi luy tolloo fukk ñeenti organisation ak ay kilifa jóg nañu daal ngir ñu génne ko foofu le ñu koy toppee mooy wax ay xibaar yu uteeg dëgg jëmale ci koppar bi nga xam ne moom la Union européenne yëkkati ngir xeex mbëkk mi Seydi Gassama bu Amnesty International ne jaay doole gi daal du wéy avocat bi koy layal di maître Assane Dioma Ndiaye di xam le ne Boubacar Seye mbir yi loo fal na ko bu baax a baax ñu waxtaanee wàllu littu jant boobu di jaari sow nga xam ne moo réeroon mër ay mbokkam les ko di ñu xamal ne jaari saw nag réer gi mu réer ci teeyu bakkenam la dara jotu ko fi mu toll nii ñu dellu si ci téere bi nga xam ne moom la ci bindoon ki nga xam ne histoire am la ci doon nettali di Aline nag moom nee na lenn rek a ko soxaloon mooy fexe ba jalgati charte yi nga xam ne moom la ñu tekk ci biti réew jàpp leen ne Joe Biden tey jii ci àllarba bi la nar a waat prêter serment ngir jiite États-Unis ci wàllu tàggat yaram dañu koy door ak stade di ñu waxtaanee ndaje bu am solo bi nar a am ci diggante Juve ak Naples di laaj ci diggante Koulibaly ak Ronaldo nag kan moo ci nar a am ndam stade di waxtaane it mébétu kii di maître Augustin Senghor am ci boppu kaaf Roger milla te mu ràññeeku lool ci wàllu football xam le ne ne moom lay jàppale ñu jeexale kook waa sunu lom bi jox kàddu gi mag Max Mbargaan mu ñuy waxtaane Modou ak amaa nee na Modou xeexkat la Ama moo daanoon Malick ñoo nee na ñoom ñaar ñépp nag ñu aay lañu ci wàllu xarfa foofa Modou Lo saf bu baax la am Ama nag moom njabootam ñoo ko wër lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool ñu yendoog jàmm